Take it. ay ci jere ngeen jëfati tay ñu dikati waxati ngeen déggati ñu delo ti bu mu ca mbay mbay ga bu mu tax xa xam Zik FM Zik fi ñu ànd ca couche ak lanjet bi gën mu di kali nekk sànni ceeg 1x bet mi nga xane mo ñindil po mi tax ñu mën ta gagné 1 million japp li nga xane mo di 100 millions nan lañ ci àndee tamit ak confisen mi nga xane mo ñu indil euh, tubar fa kala tangal bi gëna gën ci tangal yi doon buruk tangal yi mu di bois euh, mu di tangal bégee tangal bi nga xam ne kay jinjer la am neex lol te it nak bari vitamine ba ci guk

Euh, mos mosaat lañ koy tuddee waaye bëccëgu tey noonu lañ ci ànd ak yéen téléspectateur yu Sen TV auditeurs u Zik FM ci 89.7 internet yu Sen TV ak internet yu Zik FM ci page officielle bu Zik FM béggee safo ndamoo tiitaro kulum Cheikh Sarr l'animateur des quatre points cardinaux teew ci géew bi diggante 12 14 heures ayta tey nag suñu ganu tey gis ngeen ko moo di Bril fight for Bril na def ci lo nek mbaayam tawfiq yes salam alaykum cheikh sar ma ngi lay nuyu bu baax baax ma ngi sant yalla bu baax di nuyu wa zik fm mhm. di nuyu wa senegal di nuyu ñi deglu ñep mhm. yeah biril rew mi namon nañ la trop trop trop rew mi namon nañ la namu say melody mhm. namu say xéti parole tarfa kal namu say xéti lyrics ndax ku wax biril wax ni jambar la ci limi def mën nako bolé ci fulla ak fayda mais euh biril bala ñuy dem dañuy daal di nuyu internet yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ñuy seetaan ci page officielle bu Zik FM am ci ñoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci page officielle bu Saint TV bu fe yow am nga Facebook. waaw am naa Facebook bu am euh, plus de quatre cent fans. voilà. am aussi Instagram lépp. léegi da ngay dem recherche. waaw yow da nga may teel page officielle bu Saint TV. waaw da ngay bind Saint TV officiel ci Facebook bi. Mhm. soo ko bindee boo paree nga daal di abonné ci page officielle bu Saint TV dugg en direct yow yaa ñu nuyul euh, internetu Sen TV yi man may nuyu internetu euh, Zik FM yi le temps que ñu dugg ci loolu dama lay présenter suñu sponsor bi nga xam ne moom ñu àndal tey Bril. waaw moo di tàngal bëggee xam nga tàngal bëggee mooy tàngal Balla Gaye. waaw tàngal bi nga xam ne Bril gaa yi xam nañ cafka gi. cafka jinjeer la ah dugg nga. dugg naa maa ci biir. yow yëpp waa yow yaa ngi ci biir <laughs> très bien très bien. tanggal baa ngi donc tàngal. xar ma tanggal tàngal bi. tanggal tàngal baa tanggal tanggal tàngal bi ah, tanggal dama tanggal jënd tàngal tanggal dafa neex ya? tàngal déggee. léegi xoolal tàngal da nga daaj be. non dama daaj be waroon instant am na ñaari daaj. Aliou kon yow xam nga def. waaw il nga jël benn bi nga comme yow da ngay studio ba 6 heures du matin. ma jël benn bi yóbbaale. waaw jël benn bi da koy studio rek. allah di match. macha allah eh, nga. ci <laughs> <laughs> bu bi bu ngeen ci ëppalee. Ah, gi tam ngay wokkot da ngay da ngay xasal da <laughs> ah, mu di tàngal bi nga xam ne mooy tàngal bëggee saf sàpp ak jinjeer nga xam ni euh, mag ñi xam nañ ko xale yi xam nañ ko waaye moom lañuy ñuy takkee xew yi euh, tubaab fakk àll euh, muy mariage yi xam nañ ko muy ceet yi xam nañ ko gàmmu yi ak màggal yi xam nañ ko tàngal la boo xam ni. cent pour cent naturel la jinjeer la bio la ku ne xam na jinjeer la muy def ci doomi aadama tàngal la boo xam ne toor fa kàll la euh, dama koy digal sama nawley góor yi na bëri ci seen i poche bëri seen i bureau bari tamit seen i barabu liggéeykaay waaye bari seen i kër heure bu seen xel nekkee dajji leen log ci ñett dana tàng nag li koy waral nag mooy góor deretam warta way bir xam nga way xam naa way luy way way moy comme boo tegee eh, sow mu dem ba. très bien congé mel na lu congelé quoi. très bien bind kat nga <laughs> bind kat nga góor deretam war ta way. da war hmm. di circuler tout le temps. sa deret nak pour muy circuler day gën lool ngay ngay ngay ngay ngay ay jus ndier wala gi di mët ci du ndier jinjeer yaa ngi ni dem len ci marché yi grande surface boutique yi fu ngeen dem di ngeen ko mën am bir dafa am sa ben son bo xamni tobar fa kal la. Hmm. dafa cartonné. son bi mi ngi tudd sama life sama life waaw. àdduna bëgg nañ ko. dëgg la bëgg son bi euh, gëstu bi ak euh, mélodie yi naka la demee. waaw bon son boobu bi ma koy def. mën naa ne nekkul woon sax lu ma préparé. xam nga musique moom lu ci ëpp luy gën a dox mooy loo li nga xam da nga koy foowee. donc dama toog ni rek tim sama clavier comme man je suis claviste damay jouer en même temps. tim sama clavier du jeu di woyantu di woyantu. ba mu yàgg ma ne li may woyantu nii xaar ma xaar ma enregistré ko. Mhm. ma enregistré ko fekk jamono jooju maa ngi liggéey ak waa Marodi TV ñu ñëw fa waroon jël ci ay générique yu mu leen doon composé ñu déglu ko. Mhm. ne lii dañ koy jël. Mhm. ñu jël ko dugal ko seen série après sénégalais yëpp bëgg ko son bi noonu la demee ba génn. maanaam birin waykat la. mu am matériel waykat. dëgg la yàlla da koo dimbale. mu nekk beatmaker. beatmaker mooy nit ki nga xam ni day concordé ay maanaam day dajale takk ting tung pal yooyu lay dajale. c'est vrai créé ci mhm. boo xam ne dafay neex. dëgg la hmm. boobu nga am. c'est vrai. ngeen baal ma tàngar bi. <laughs> tàngal jaa neex maa ngi may sël sëlal maa ngi sël sël maa nga ca kaw. maa nga ca kaw donc compo noonu la ñuy composé son. Mhm. est-ce que mën nga ñu wax exactement nature musique. musique nature am. musique lan dajale. waaw musique comme rek son la. Mhm. mais yan son la ñuy dajale ba mu nek mélodie bu neex. c'est vrai musique comme son nom l'indique rek comme ni koy waxee mooy c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille Moy lépp nopp lépp lu muy dég rek son la. Mhm. bruit petit yi bruit auto yi lo loo ci dég rek loolu son la Lo xass ba dugg sa nopp son la. Mhm. léegi nag na nang ko koy dajalee agencer ko ba mu neex ci nopp ba koy déglu dara du ko ci déranger loolu la ñuy musique. tey jii ni bon su défar musique dafa am ñaari partie dafa am partie rythmique ak partie mélodique partie rythmique moy li nga xam ñun africains sax mom lañu gëna a moy sabar yi ak batterie yi lépp li nga xam day yëngal nit ki loolu lañu ñuy rythmique donc amna sabar am tama am calabasse am euh, batterie am aussi yeneen bol sax mën nga ci créer rythme donc légui nak mom ay partie mélodique partie mélodique mom lu koy créer moy instrument yi dafa am ay instrument à cordes am ay instrument à vent man instrument à cordes yi comme ay guitare ay xalam ay kora affaire yooyu yeneen instruments yi nak mom moy comme ay clavier

fël na sa nopp parce que nit ku il faut nit ñi xam ni nit ku nekk la muy yëngu fa la ko yàlla di fekk dëgg la nit ku nekk la muy yëngu fa la ko yàlla di fekk mhm. mbër mi bëri sax mhm. day bëri di bëri ba mu yàgg benn clé nekk ci xel bi mu ne ah tey su ma demee entraînement naa essayé dinaa essayé li euh, maanaam ki nga xamante ni si euh, waykat la mhm. day jékki-jékki rek dégg benn xale wax benn wax rek aayoo mu def ko way mu jël ne aayoo aayoo aayoo bébé ne wala mu ne aayoo nen wala aayoo yaay. donc mélodie nan lay dikkee. waaw musique moom yëfu jinne la. donc mhm. mélodie fu ne la lay dikkee. fu ne da ngay nelaw sa moom yàgg des fois da ngay sax mu dugg dikkee la ci gént wala nga dugg ci oto di dawal nga dégg benn bruit wala benn affaire wala benn wala ci beneen son beneen morceau boo xam da ngay toog rajo rek ko. Mhm. mu am lu mu la inspiré. nga ne su ma eggee dina dinaa def lii musique wala des fois te mu doon looy wayantu. dafa mel ne sama son bi bi trahison rek bi nga xam tamit àdduna bëgg nañ ko. Mhm. bi ma koy def dama doon font di woyantoo wax ma laan moo tax nga def ma lii xaw ma laan moo tax ma ne lii su may génn naa ko def son donc nii rek. mais son boobu. ko dégg temps primaire. donc loolu la la may ah. dikkee. ma egg comme que nag yàlla def na. ni mm-hmm. dama demoon jàngi musique. Mm-hmm. ba am lu ma ci xam. fan nga jàngee musique Sénégal Europe foo ko jàngee. Sénégal fii laa ko mm-hmm. jàngee maison de la culture maa ngi tamit nuyu sama professeur Adolphe Coly. donc jàng clavier ba xaw xaw ci am maîtrise ma bàyyi gën a performé wu parce que tout le temps ma koy def li naan la répétition est pédagogique. boobu ba léegi ma ci nekk di liggéey ba yàlla may ma lépp lu ma dégg rek mun naa ko jouer. lépp lu nit way sama kanam. Mhm. mun naa kaa joué euh, euh, sunu papa Thione Seck daf ma doon wax yow Bril jaaxal nga ma. parce que mhm. jot naa liggéey moom mun ne ma lépp lu nit wax ci gémmiñam rek mën nga kaa def ci clavier bi. donc euh, mu nekk loo xamante ne yàlla may na ma ko. Mhm. ba artiste bu ñëw rek ci man. wala man aussi personnellement lépp li nga xamante ne dégg naa ko sama nopp rek. mun naa kaa jouer sama clavier. cool génne ko. léegi dañuy nuyu euh, internet yi nga xam ne ñu ci page officielle Saint TV di le temps nga dugg ci page officielle Saint TV nuyu quelques internet yi nga xam ni connecté wu nañu. Mhm. man ci kanam tuuti ma dugg ci page officielle bu Zik FM nuyu quelques internet yi nga xam ni connecté wu nañu ak ñu ngi seetaan ci télé bi ak ñu ngi déglu ci rajo bi jamono ji waaye dañuy fàttali ne ba ci gu tey ñu ngi ànd ak boisson bi nga xam ne moo di boisson king. moo ne buuru boisson yi ndax loo gis day am buur waaye buuru boisson yi moo di king nekk boisson boo xam ne am na wuy parfum amna cola amna orange amna lemon amna cocktail amna fruit rouge amna ananas am na pomme amna morito boisson la bo xam bu bu da fay neex waye bu gënee seddee dara du ko dak ndax slogan bi moy mos mosat lagg leen jëndi ko ci marché yi grande surface yi boutique yi fu ngeen dem da ngeen koy am ay te biril dugg nga ci page officielle bu Sen bi nuyu ñu quelques internet fofu maa ngi ci biir nuyu naa leen mhm. ya ngi ci biir mhm man nga ñu tuddal quelques nit yoo xam ne instant bi ñu ñuy seetaan ci page officielle bu Sen TV après man ma ñëw ci page officielle bu Zik FM. c' est vrai maa ngi gis Ami Niass yi maa ngi lay bégee euh, Kémou nee na seen plateau bi neex na Cheikh Char. c' est ça Sakho Taïba Abi Diouf. Mhm. Ngone Jaba Ndiaye nee na sama Bril man tamit yaay sama Ngone. Mhm. Malick Ka euh, Mariama Diallo Cheikh Meng Yaya Bril Fight Omar Boy Boy Mam Dieng. Moussa Touré Khady Faye Mor Papa Paya Nya. donc bëri nañ dal bëri nañ <laughs> ok buñ ci joggé fofu ci page officielle bu Sen TV damay ñëw ci page officielle bu euh, Zik FM Cheikh Anta ñu ngi nuyu bu baaxa baax tamit Lay sum Lay sum ñu ngi lay béggee bu baaxa baax. Adama Mbang momit connecté wu na kii di euh, Khadim Niang connecté wu na waaye tamit ki di. Euh, Wassine Ngom Wassine moom la tudd bi tuddul Yacine Wassine Ngom mi ngi ñuy seetaan Oumar Ba jërëjëfate Mamour Dieye ñu ngi kontaan tamit ci Lay Diop Junior merci beaucoup à euh, Pape euh, Alioune Thiaw ñu ngi lay kontaane bu baax a baax. merci tamit euh, euh, ñu ngi kontaan bu baax baax tamit ci Papa Ndiaye jërëjëfate ñu ngi kontaan tamit ci Sophie Goudiaby ñooñu moy internet yi nga xam ne jamono ji Cheikh ñu ngi ñi seetaan ci page officielle bu euh, Zik FM ñu ngi leen di kontaanee jërëjëf di kontaan tamit ci Mamour Cissé Cissé Madamel Mañang mbay ñu ngi lay kontaanee bu baax baax di kontaan tamit ci ki nga xam ne di Mor gay merci beaucoup à Fallou Bousso di bëgg tamit bu baax baax ci Moussa Sall. Euh, Sallangaari Lam toro Mbour Guéré ñooñu ñu ngi ñuy euh, seetaan ci page officiel bu euh, Zik FM ayca dañu leen di may morceau bi nga xam mom modi moo di Bill Fight Fo ci sama life morceau lo bo xamni dafa neex euh mélomane yi ñu déglu doo ko Bill nga yuuxu ci lu la neex. waaw waaw. se sont croisés. Elle a renversé nos cœurs et l'a fait chavirer. Amador Simon, j'ai perdu la tête. Notre histoire est cool, il ne faut pas qu'elle soit. The first time I show you laa xam yaay sama life bëgg naa la lool yow yaay sama life love you I love you baby I love you I love you I love you I love you baby I love you I love you Yeah, you yaay jotali sama do, baby je peux t'appeler bëgg la menace et di s'enfuir mooy samari yow mooy ma jour romb nga Evan Marie jour danga ma bëgg ma romb la jege la wax la ko wóge la béy tubaar fa kàll euh, dèjà biñ ko tegee page officielle bu Zik FM bi ma nekk ni instant bi gaa yaa ngi commentaire kër yaa ngi bëri gaa yaa ngi koy yëg morceau la boo xam ni tubaar fa kàll woy ndëpp yu bëri la bëri ñu bëri la euh, donc ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax internet yi xam naa Zik FM ci kanam tuuti ñoom dañuy jël antenne bi dem journal ñoom bu ñu paree dinañu joxat antenne bi mais ñun instant bi ñu ngi en direct ci ñaari page yëpp muy page officielle bu Saint TV page officielle bu Zik FM en même temps ñu ngi en direct sur la chaîne leader mu Saint TV suñu gan ak tey Bril la moom la ñu dalal tey ñu fas yéene waxtaan ci monde musique waxtaan ci li nga xam ne moom moo di mélodie waxtaan tamit ci beatmaker yi waxtaan ci projet waxtaan ci single bi nga xam ne mujj na ko génnee. Bril ba ca gug tey loolu ñu àndeeg free money free money nag ku ñëpp xam nañ ne transfert d' la boo xam ne mhm. da nga ciy yónneeg jot xaalis fay ci say facture courant ndox abonnement TNT ba ci canal moom moo ñu indil innovation de taille indil ñu carte bi tax ñu mën a moom suñu alal plus de deux cent dix pays fu ñu ci dem carte bancaire la dugal ci code daal di génnee suñu xaalis noonu la ñuy indilee tamit Euh, application bi nga xam ne moom moo di My Free My Free nag da ngay dugg nga téléchargé ko Google Play wala ba Play Store boo ko téléchargé ba noppi jàppal ni am nga application bi te application bi soo ko amee. Euh, ka nga bokk euh, ak ñun réseau ka nga ñàkk bokk ak ñun réseau. bokk nga ci biir application bi maanaam su boobaa di nga mën di yónnee jot xaalis mën a fay say facture courant ndox abonnement TNT ba ci canal leneen la ci gën a neex ba neex ca nag mooy que ne lañ leen indil lu kenn mësta indi la ñu indi mooy maanaam. ñun waa Firimani dañuy pare pour lebal suñuy client lebal xaalis ànd ca kofina boo bëggee ñu lebal la boo amee euh, application bi nga xam ne mooy My Free ba noppi da ngay dugg ci jazz 150 étoile 7 jazz nga bës touche appel dugg nga ci service bi après nag lebal 300000 mën nañ la ko lebal nga liggéey biril instant bi boo yoroon 300000. waaw nga nekk un sénégalais. Mhm. buy war a liggéey comme ni nga ko waxee. 300000. Mhm. Parce que tu m'as créé un projet. Bien sûr. Ah oui. démarrer avec 100 000 francs. Mhm. Hein? Bien sûr. Tu sais qu'il placer où? Rek. Rek. Étudier ce que tu fais. Regarde ce qui se passe. Tu lances sur ça.

Jayla aussi tamit euh, Jayna aussi son bi ma composé soxu bébé li may yëg maa composé Abdou Guité Seck yow la bëgg ak son album coup d'état Pagay Mbay na ma ray ak bien d'autres sons hein, ak sama son man tamit yep ma ko def ak wa Safari ak beaucoup d'artistes. est-ce que est-ce que yomb na. waaw bon amna ci facilité bi puisque luma luma yag def la luma choisir la ne mooy sama liggéey aussi ma jàng ko donc artiste bu ñëw ci man rek dama lay déglu ne la wayal ma xol li nga ma indil soo woyee rek man dinaa xam la laa lay defaral donc et puis yàlla def na ni dama koy def ak xol su ma koy def day mel ne sama morceau bopp laay defar ba lépp lu ma defar rek bu génnee sénégalais bëgg ko. imagine ab xamuñu ñu bëri xamuñu woon ni Bril moom moo def son Jeyla bi de ko oyofal. mu nekk mm-hmm. son bu cartonné. son yu bas yu bëri moom moo ko def. Mm-hmm. Jeyba son yu bëri yu cartonné moo ko def ki nga xam ne moom moo di Jeyna tamit la même chose. Euh, donc ak Abdou Guité Seck yow laa yow laa yow laa. yow laa bëgg yow laa bëgg. Mm-hmm. Euh, mais sa son bi nga def featuring bi nga def ak Bass Thioung. bii bii dafa yéeg. bii dafa kawe. son bu rythme la mais dafa am ay sew yoo dugal ci biir. maa ngi dégg xaw ma tungu ni la xaw ma lu mu doon naan kun kun. talmbat talmbat gi la ah talmbat la. waaw kun am mbës mbës am talmbat am euh, am aussi tuuti mbalax am aussi euh, tuuti tamal. Uh-huh. comme que Bass Bass Thioung laa ci àndal. donc fallait que ma def ben style bo xamanteni da fay rejoindre limay def ak limuy def donc mu créer ben affaire bu bees quoi mu nek ñun ñaar ñëpp donc lool motax ma def ko ci ben morceau bo xam trap la trap beat comme rappeur li ñi def. Mhm. ma bolé ci marimba bolé ci mbës bolé ci talmbat bolé ci mbalax. xaaral nga may mami gewon wa man nag gewel laaj sama côté yaay. non la mën démé way waaye waaye yéen yi di yéen a yi di deug yi di mënut a déggee ci ci ci kuy sama te damay yaroo tey yow boo doon tàgg sama bopp noonu nooy tàgg sama tey ci ngéwal gi. ci ngéwal gi. waaw ah lama saas ma coro fay saas. ah lama saas la. waaw. yaa ngi doog a dégg wax la ma saas nga. sama saas la waaw. mais sama côté kër yaay moom euh, euh, euh, nu ñu koy wax. c'est que ma leen tagg nag quoi mais. sekk la wala fay la. fay waaw mais ñoom ay géwél waaw ñoom ay géwél 100 pour cent lañ ñoom vraiment te man fi ma yaroo yëpp dama daan dama daan toog di seetaan ay di fa ñëw di way. dama seen ay nit toog di fa di way te sama yaay aussi dafa xawoon am te xawoon jege Fatou Géwal mhm. donc bima ma nekkee xale yëpp daa yoroon ay salon de coiffure yu bari donc du coup da daraan tuddee ay cérémonie Fatou Géwal mu daan ñëw suñu kër ak yooyu yëpp donc ma nekk koo xam ne ma nekkee xale laa commencé di ko coiffé wala di ànd ak di way di ànd ak moom pas ci ay way mais ci ci lu bari quoi ci lu mhm. bari donc moo tax nag bima ma nekkee xale dama teeloon bëgg ay way di reprendre ay wayu jambour et tout ba affaire bi dem ba nekk ci man cool en tout cas noonu la mën a demee parce que euh, musique tamit dafa laaj ak dégg. Mhm. parce que musique ni mu laajee ak dégg moom mooy comme looy composé la faw mu am foo xam ni euh, borom dégg-dégg su ko déggee da koy daane. Mhm. man man bi ma déggee way wi lu muy réer yi maa ngi dégg luy gos tuuti. kuréel kuréel kuréel sama waa ci ginnaaw noonu la mel day déglu way waaw moom day déglu way des fois way day dem ki way di way mm. mais déglu son ba ci biir donc mu nekk loo xam ne lu am solo parce que euh, ndaanaan yu mel na yow dañ leen di war di jox cër bu ñu yellool macha allah waaye tamit tubaar fakal di leen di leen di dooleel di leen di dooleel da ciy am solo trop trop trop ñu ñu delluwaat ci internet yi nga xam ne ñu ngi ñu suivre ci page officielle bu Sen TV ak page officielle bu Zik FM donc Biril moom moo nekk ci page officielle bu Sen TV man maa nekk ci page officielle bu Zik FM euh, Biril maa ngi nuyu bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di euh, maam Babou Sakho waaye tamit Kumba Samb mi ngi ñuy bëggee Oumy Niang Momi Niang mi ngi ñuy bëggee. Euh, ki nga xam ne moom moo di Ndumbe Yadd moom it mi ngi ñuy bëggee ci page officielle bu Zik FM yow mun ngaa ñëw ci page officielle bu Sen TV ñu nuyu quelques internautes. bu ñu paree ñu duggaat ci yëf yi. Fatou Bintou Diouf mu ngi ñuy bëggee bu baax a baax. Mhm. Sow Bala Sensio ak euh, Modou Ndiaye Faye Issa Soxna Jaar Yatu Diop. Weji Niang Baye Serigne Lo Ndeye Tening Diouf euh, Fanta Rasoul Niang.

génnewuma bobal bon génne na album yag na moy amone bralon ak euh, namante ak am sorry bon mu nekkon ay morceaux yo xamanteni demit tamit cartonné woon na. Mm. nit ñi bëggon nañ ko trop surtout bralon. bralon euh, voilà après lool nak tok na lu yàgg génnewuma album. bralon. moy son bo xam dang ko nga koo génnee. Mm-hmm. laal xaju Sénégal gep gep gep gépp. dëgg sha allah est ce que mën nga ñu gëna expliquer euh le mot bralon. Ah, bralon euh, ci olof mom moy loxo bu bugudu manam euh, tay ji ni senegal ak Afrique sar lay wax. Mhm. euh dañu nek ay rew yo xamantene ni euh bokku ñok yeen système dekk ni ñi doxé par mhm. exemple américain yi bo ñëwé bëgg liggéey dañ naan la yow lan nga mëne bo né li la mëne ñu jox la né la défal ñu xol boko défé ñu jël la nga liggéey bu dé yeneen dekk yi dañ lay laaj ban diplôme nga am. Mhm. donc bo leen adlé diplôme ñu jël la nga liggéey mais Afrique bari na ci ay dekk yo xamné bo ñëwé di wut liggéey dañ naan la kan mo la bolé ak man. dëgg wax jooju dëgg wax jëj jëj manam bu dé Amérique boo dee wut liggéey dañ naan la loo man loo man li nga mën ñu fekk si la ci bu dee France ak yeneen réew yi dañ naan la sa diplôme mhm. mais bu dee Afrique ak Sénégal gii plus particulièrement ku la booleeg moom kan moo la boole diw moo nu boole ah sa nijaay waaw sa nijaay waaw c'est vraiment indi dossier bi suba xëy si mais ci biir clip bi gis naa ci ndeysaan mhm. nga am rendez-vous mhm. ak directeur bi indi sa diplôme c'est vrai nga toog ci bureau bi di xaar te bi ngay dem yaakaar naa cent jox nga paas téeméer la ma jox paas. téeméer nga paas ci dugg car rapide. Hmm. bi ak apprenti ba ña nga fekk ca euh, ca car rapide ba xaw laa xaw yëngal sa xol. nga mer daal di fii ca ku dem. di dox ba ñaq ñëw toog. di xaar pour ñu jël euh, directeur bi euh, jël la. Hmm. pour nga wax ak moom ci diplôme bi nga am. dëgg la waaye directeur bi moom daa jël xale bu jox nga ko teg ko ci wetam ni ko kaay di signé. yow mën la demal ba beneen yoon après dina naa la jël si. donc loolu loolu nit ñi di dund. da ngay da ngay jàng ba am sa diplôme mais diplôme ba du la jëriñ. du la dara. da ngay dem ci bureau boo xam ne kañ fa teg yàlla xam na ni. amul sax entrée en wala boog bu dee am diplôme entrée en la am. maîtrisard wala boog it euh, diplômé yi. ñoom ñu bàyyi leen ñoom ñu nekk di raxas ay oto. mbaa mbaa di jaay café Touba mbaa leneen ak leneen. te fa ñu teg nit kookee am na ñu euh, ko gënoon kañ fa waroon teg ma nga nekk ci leneen. Mhm. dafa am benn slogan boo xam ne. bu président Macky Sall indi woon ci ndolteg nguuram mu nekkoon baax bu ma neex. phrase bu ma neexoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. loolu buñ ko defoon kenn ku ci nekk liggéey ba dana jaar yoon. kon romb nañ fi fépp. waaye beneen bi ci tege NTS nouveau type de sénégalais. mu nekkoon ñaari slogan yoo xam ne ñaari rek mën a defar réew mi. dëgg la te loolu dafa mel dañ ko xaw a sàggane. donc bu ñu dellu si waat toon loolu dina baax. Euh, sinon sama sama yaay nee na daf na mere na ma trop parce que nee na daf bu mënoon dugg. daa bëggoon dugg wax la fa ci fa ma sa yaay. waaw woo ko sa téléphone directement sa yaay dugg. wax nu foo mu wax nu foo. man kay la neexee nga def ko appel vidéo ça dépend la ci <laughs> mais waaw waaw yow xoolal noo ko bëggee. nee sunu yaay sunu yaay day dugg. waaw yokkal volume bi ko ci sa micro. wax noo noo noo bokk noo bokk ak réew wax leen li tax nga way. dëgg la. ñu ngi lay dégg dafa armé moo tax ñu ngi lay dégg. waaw. waaw maman ñu ngi lay dégg. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam yaay boy. waaw man maa leen doon nuyu leen wax lan moo tax mu way. ndeysaan. xam nga way da nga koy wala nga wala mu nekk sa wala nga ko. dégg naa ñu ngi lay dégg. waaw way da koy doon wala mu nekk sa deret wala nga jàng ko. dëgg la yaay. nag daf koo doon ba pare door koo jàng. Mhm. maamam a tax mooy buubu gawlooy maamam. buubu gawlo sekkay maamam moo tax mu xalam jibi bu ko neexee xalam bu ko neexee tëgg bu ko neexee way. dëgg loolu. waaw maamam fara junjung la ca kawoon. Mhm. biram ku baag biram jëleen bu la neexee tëgg bu la neexee way bu la neexee. fecc <laughs> da nga koo doon ci sa kër ndey. ndeysaan. sa ma bokk ci biram siga paaru teeñ. waaw. biri siga faal ñaa siga ñàkk juma ngoo jaañ séeréer da ci am gaal bokkul ak biram siga paaru teeñ man de ngoone ngoone maam njogu yaay mam, mambu yaay koddu la coro mi ci mbuura ngóor mi des gandi gaal fa sa panda penda manga mi ci ngoy bu la neexee way dëgg la sa maam daraan way mhm. di way daayaani dameel yi dëgg la macha allah nga war way nag di way war xalam buubu gawlo sekk la ñuy sa maam buubu gawlo sekk ablaay ak maajoor sira kumbalaw beeg buubu kumbalaw beeg bu la neexee xalam bu la neexee woy sa deret dafa arve moo tax nga woy waaye nag da nga koo jàng. lay ndeysaan. macha allah bi jàng jotee da ngaa dem jàng. dëgg la. am say diplôme ñëw imposé ci Sénégal. Mm-hmm. yal na la yàlla fal cat. amiin amiin amiin. te loo am bokk nga say waajur. loo am bokk nga say mbokk fa nga bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggale ci barke Salatul Fatiha. barke Serigne Babacar Sy kontaan naa nag. amiin amiin jërëjëf. moo tax ma dugg émission bi. jërëjëf kontaan nañ trop. macha allah macha allah jërëjëf jërëjëf. <laughs> waaye kontaan nañu. biril biril biril waxal yaay booy kontaan nañ ci moom lool lool lool lool kontaan nañ trop na fi yàgg lool yàgg noo wétti na fi yàgg waaw waaw na fi lool yàgg noo wétti ni lii lii dafa sedd xol nekk ci nekk ci nekk ci mbir mhm. sa yaay fekk la ca wax la yaay kan dëgg la dëgg loolu dafa sedd xol biril waaw euh, bi bi bi tàngal bi waaw suñu yaay lañ ko may dégg ah jërëjëf dina kontaan trop ci jot de dina jot fi laay fa laay jubali su ma paree biril na ci jot de. fa laay jubali ma paree ci. maman lii dañoo suñu xool dafa sedd ci yow dañ la ko may tàngal la tàngal bëggee la. Mhm. bu la ko biril indilee bor la bu la ko indilul bor la. <laughs> donc jot bu neexee yàlla. jërëjëf jërëjëf maman dina kontaan trop. incha allah mhm. moo ñu moo ñu euh, indi ci àdduna tetteenu. Mhm. xamul na ñooy kan ba nu gën ku nu war woon gën tubaar fa kàll kon yaay booy yàlla na nga gudd fan fekkee njariñ li yëpp yëpp yëpp euh, dañuy del siwaat ci euh, li nga xam ne moom moo di son bii di branlon euh, son bu neex la solo boo xam ni si bi neex na si bi neex na waaye nag gis naa ay xottu leket yoo ca boole muy kokki kokki day neex loolu tubaar fa kàll musique musique bu jaaree yon kiko ko liggéey. Mhm. liggéey ko te xam ko mën ko comme li say wax léegi ni dëgg la soo woyee da nga wara way so wayul da nga wara way woy. Mhm. doomi mbër jàngil ndax ëllëg di mbeur diñ la mos a ñam donc li nga def lool li na sa deret ne na sa deret waye demal def théorie après nga def pratique. jàngi bu baax loolay waral tubaar fakal tey biril mën naa ne waykat yu bëri ci Sénégal. Mhm. seni son mi ngi cartonner loxo biril moo ca nekk. dëgg la tudd nañ fi léegi ay ay ay ay yoo xam ne récemment euh, ci mois yi ñu génn. Mhm. Euh, ci at yi ñu génn ci la génn. waaye dafa cartonné te loolu lépp loxoom la moo ko liggéey. te man des fois damay bëgg euh, nit ki soo seqee mbir mbir ma suñu borom def ca barke. nga la waay del toog di ko fesal ba balaa sax ki nga ko seqal di ko fesal. yow nga fesal ko mooy dàq. Mhm. même bu fekkee nit ki da ñëw fekk studio am. Mhm. wala boobu da ngaa ñëw mu jël xam-xamam bindal la jox la mais. Euh, nga fay ko. même soo toogee neen œuvre bi œuvre diw la. dëgg la dalay yokk du la wàññi. te loolu yàlla dala ciy yokk. billaay te ñu bëri xamuñu loolu. xamuñu seen surtout sénégalais. xamuñu loolu <laughs> sénégalais sénégalais loolu mooy seen problème. reconnaissance. dëgg la am na ay morceaux yu bëri yu ma defar tant que tant que tooguma boo wax ni maa ko defar sénégalais duñ ko xam. parce que man kese may kiy toog di wax ne maa defar lii maa defar lii maa defar lii. du yoon au sax am na ñoo xam dañuy gis ne bon soit da nga bëgg tag sa bop wala dara alors que du lolu alors que parce que liggéey bi nga def la nga koy fessel pour nit ñi xamné yow ya def li nit ñi dañu musul mais gis nga bo musul da ngay xamné yalla yàlla nekk ci melni mbir di stagné mhm. da bul xol sa digënté yalla ba paré ngay xol sa digënté nit ñi ba paré bo xolé sa digënté nit ñi ba paré après fofu lepp day yomb mhm. man ma dem ci studio bi fay ko 1 million mu defal ma benn

Mm-hmm. ñoo doon toog suñuy guddi toog suñu bëccëg di suñu gerte caaf mm-hmm. des fois naan suñu kafe Touba mbaa suñu ataaya dama koo fay mu liggéeyal ma waaye sama xol sedd na lu yokk na la day yokk biir mm-hmm. yàlla day gën a defaat cofeel ci doomi aadama yi ñu gën laa bëgg yàlla danay yokk da lay yëkkati loolu di leen ci bàyyi xel di leen fesal œuvre yi way nga way bu am solo ci branlon mais il y problème foo faut ñu wax Sénégal dañoo bëgg liggéey waaye mënuñu liggéey dëgg la da ngay gis kuy wër liggéey ba am liggéey au lieu ko nga fonk liggéey ba doo ko fonk. caaxaane ko loolu tamit am na si. da nga koy caaxaane. dëgg la beneen bi ci tege mooy dama am benn bis may waxtaan ak benn kilifa mu ne ma. Cheikh est-ce que am na loo xam ne tant que arrêté wuñ ko ci réew mi réew mu du développé da ngay gis société lëm comme kër gi ñu jël ma jël bilir jël Cheikh Anta. Mhm. man animateur la. yow technicien la. dëgg la kii journaliste la. Mhm. mais est ce que xam nga ni boo ñëwee ci biir ci biir bureau bi ci biir société bi di liggéey da ngay liggéey sa liggéey da ngay liggéey liggéey waaj liggéey sa liggéey. liggéeyaale sa liggéey lu am nga wax. da ngay toog sa bureau toog sa stade yëpp ay njaay nga ci def ay njaay. Mhm. da ngay jaay koko konkoron tamate loqati yooyu ngay jaay. Mhm. nit ñi di la SMS. yow yaa ngi liggéeyal waaji mais yaa ngi liggéey ci biir. c'est vrai est ce que doo tal liggéey waaji ba pare ba paree nag mu jublu ci sa liggéey. c'est que ñaar ba ñett liggéey yi kenn téréwul business. dëgg la mais nag business bu ko business ci business su jàmm. c'est vrai. c'est-à-dire que Sénégal bëgg nañu liggéey. waaye mënuñu liggéey. loolu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. ñu nuyuwaat internet yi nga xam ni ñu ngi ñuy suivre man maa ngi ci page officielle bu Zik FM. yow Biril yaa ngi ci page officielle bu Sen TV. Mm-hmm. donc euh, ma nuyu quelques internet yi nga xam ni jamono jii ñu ngi ñuy seetaan Nogoy Samb mi ngi ci page officielle bu Zik FM euh, ki nga xam ni moom moo di. Euh, ki nga xam ne moom moo di maam mi ngi ñuy seetaan moom it ci page officielle bu Zik FM euh, Dieynaba si wala si Dieynaba jërëjëf Khadija soxna Khadija Dabaax ñu ngi lay kontaane bu baax a baax ñu ngi kontaan tamit ci.

awa yaafa mu ñuy béggee soxna jaaratu Diop ak Marie Thérèse Diédiou Baye Serigne Lo Ndey Astu Mbay essai vidéo soxna jaaratu Diop encore Fallou Touré Maada Ngom Ngone Jaba Ndiaye waaw pass bi moom bëri na ñuy bëgg ñuy bëgg bu baax a baax te si ay ay nit yu bëree bëri ñoo ngi connecté di seetaan ci page FM officiel ngi leen di kontaane bu baax a baax di leen bëggee yéen ñi nekkee ci page officielle bu Sen TV merci beaucoup ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax di kontaan tamit ci téléspectateurs yi. Mhm. Euh, ndax it balaa ñoo balaa ñoo continuer tamit euh, sama papa. Mhm. sama papa di mooy insister bëgg a dugg. sa papa waaw ma ne xaar rek. ah loolu émission bu neex la émission bu neex la parce que ay ma toog. <laughs> Euh, ndax ku nekkee bëgg a dugg xaar ma woo sama papa papa Moussa Fall. waaw. Ah. naa day xam naa sax day jëm a dugg nii ci rajo bi. waaw waaw moo tax. kon papa kon papa bu de yang may deglu da ngay couper mu wat la. kon papa jarul papa Moussa Fall. bu couper rek na la wat inshallah li li dafa neex li dafa neex. xam nga ne nit bu ne nit bax na. nit ñene nak mbokk ya ko wax. deug la deug la lolu lolu lolu lolu day am solo. lolu day am solo ma tante wat ba na naa hmm. jot. lolu day am solo donc bu fekke bu fekke ah, bu heure bokku jote rek bax ah, jot na ko allo waaw. papa Moussa Fall yang ci bir allo allo wa ñu ngi lay deglu waaw. maa ngi en direct. yaa ngi en direct waaw yaa ngi direct papa. waaw euh, maa ngi wax ak Cheikh Sarr. waaw. Uh-huh. di ko xamal ni ko gerte bi ñu am tey mënuñu mesurer sax dimension bi. Mm-hmm. Mm-hmm. allo. waaw ñu ngi lay dégg ñoo lay dégg. waaw euh, man dama nekk ci ci fierté bu extraordinaire tey parce que wax dëgg yàlla sama doom la ñu invité. Mm-hmm. Ah, sama doom la ñu invité euh, dëgg la yaayam moo doon wax léegi sagar. dëgg la. alors man maay papaam. Mhm. maag papaam ñoo bokk ndey ak baay man maay Moussa. Fall mhm. mooy Pape Daouda Fall mooy papaam. ndeysaan. Euh, ci yax bu rëy la bokk. dëgg la macha allah. li yaayam wax rek moo ci nekk. Mhm. Euh, jibi su woyul dina jaaxal nit ñi. dëgg la. parce que côté yaayam dafa war a woy. côté papam dëgg la xaj na duñu gëwél mhm. waaye sama yaay dama ne bu fekkonte ni mu ngi dund tey fii fekk ci jibi mhm. mbégte mu rëy lay àndal dëgg la dëgg la euh, jibi nag euh, dafay xale bu neex neex a neex a neex a neex àndal dëgg la dafay xale bu neex a jur mhm. parce que dafa xam waa kër ndeyam xam waa kër baayam dëgg la du kenn wax dëgg yàlla man sama fierté la tey mbégte bi ma am yàlla rek moo ko xam ne et encore par hasard laa jàpp rek yem ci moom. ndeysaan donc euh, jibi dama lay ñaaral yàlla yal na yàlla may la ndam yal na yàlla guddal sa fan. Euh, li nga bëgg ci aar bi yàlla na la ko yàlla defal. te ku lay xaar yal na xaddi. amiin yaa rabbi man c'est notre fierté. toute la famille. Mm-hmm. Euh, juin à ma personne dañ lay wax alhamdulilah di la wax jërëjëf. jërëjëf papa. dina wax fii nga nekk. Mhm. ah yàlla nañ ci gis sa bopp. amiin ca kaw ca kanam incha allah. merci beaucoup jërëjëf. gërëm sa yaay di ko sant moom tamit. amiin amiin ah. jërëjëf. xale yëpp a ngi ko bëgg euh, branché wu ci scotché wu ci télévision. Zik FM jërëjëf. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. macha xew la say say mbokk di di di wax sa mbaax ndax nit moom ñu naan euh, loo xam-xam ma Masamba gën laa xam boppam waaye boo dee balaa ngay wax mbaax yi doomi aadama bàyyil ba ay mboqam di ko wax tey mhm. sa yaay ji la sukk jur moo wax sa mbaax léegi seedeel la fi nga bokk wax ne la wax la yaay kan waaye mm. tamit sa rakku papa xam nga sa magu papa. Mm-hmm. moom it dugg def seede yi. lii lu am solo la lii da lay gën a jàmm nga gën a góor góorgóorlu. Eh, te ñun ñun fierté nga fierté nga ci ñun ñi nga xam ñoo dund ñooy dund monde musique. dëgg la fierté nga ci ñun. Eh, dañ la war a fonk dañ la war a téye dañ la war a sagoo dañ la war a tiitaroo eh, jàppal ni ni la say mbokk di seddalee noonu la tamit doomi aadama yi di seddale ci page officielle yi ñu ngi bind nit ñaa ngi wan tamit ni ñoom dañ la bëgg. loolu lépp ak cant la ak sag te da nga ciy sagu ba mu neex. ñu frère DJ Padros. Nous mhm. ngi suivre jamono ji ñu ngi nuy bu baax euh, star artiste complet la. te loolu te loolu gis nañ ko ci yow. auteur compositeur tamit nekk nit ku baax. tubaar fa kàlla. loo loo loolu lu am solo la. Mhm. Euh, dañuy son namante. namante aussi def ay yu am solo am solo. am solo amante. Mhm. Mhm. Mhm. waaw namante moo ngi bokk sama album suba. Euh, nekkoon ben album boo xamante ne moom laa moom laa aussi ay it yu comme euh, bras namante am sori ak si la aussi tam benn vidéo bu am réussite ne na à peu près 3 millions de vues. Qui ko defoon nekk huit flags

gisatuma la tu la woona la te jotuma la dañoo jote nga ne dang ma bloqué ñun fii ñu jaar moo tax tey lii daf ma choqué bul foog maa ngi keneen yow laa loo ñu bëri ma topp waaye dañ ma soo fan ñu mel ni yow yow ruñ sa yaa ngi gis may kaaf di ree dama kontaan li ngay gis sama histoire bokkul ak li ne ci yaa ngi wane ne danga bëgg xam naa ne loolu du yow xamante nañ lii lay daaneel leen na la nii man ñi lay topp ne leen ñu yem dama dee ci yow te yaa ma raw xamal ni namm naa la xol na namante nañ maag yow xam nañ ni namante nañ hey yow xamal ni nam nga la baby na nga xam na ni nam nga ma maag yow sunu xol yi namante nañ maag yow xam nañ ni namante nañ foog nii maa ngi ci leneen man xam naa yaa ngi ci keneen ñaanal naa la nga daje ku maa gën waaye ci sama xel neewul maa gëm sori nga samay bët sama

sa sakana léegatuñu waaye xol yaa ngi gise bokkatuñu yoon waaye ñu ngi tasse dama wax ne bàyyi naa la jël na la remplacé waaye dafa mel ne mënu ma la tipse boo dellu see dama koy féete dama gën a xam fan nga ma féete jugal fi nga nekk fekk si ma jege si ma namm naa la baby kaay mënu ma la fàtte yow xamal suñu xol yi namante na maa yow xam nañ ni nam naa la baby xam naa ni nam nga ma maa yi namante na maa yow xam nañ ni namante na foog ni maa ngi keneen yow laa loo ñu bëre ma topp waaye dañ ma soo fan ñu mel ni yow yow ruum sa reeta may gis may kaf di renga foog ne dama kontaan nam na la

sommes la plupart émission bi suñu demee ba euh, rediff bi. ñu teg ko mhm. ay boori une heure euh, lañ koy seetaan ak c'est vrai c'est vrai ñu leen di bu baax baax di leen euh, Bril ba ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci musique léegi boo xoolee. musique bi léegi dafa am lu bëri loo xam mi ngi bëgg musique c'est vrai mooy pourquoi. Mhm. pourquoi que ñu jël phénomène. boo xoolee way yi génn yëpp noon noonu noonu noonu noonu noonu noonu mhm. est-ce que kon du ñu dem ba noonu day dem ba day occuper suñuy suñuy suñuy suñuy xel mhm. maanaam yow man su ma jàkkaarloog biril sax sama maayen mi naan sama noonu sama noonu la su ma jàkkaarloog Cheikh Anta sax damay jàkkaarloog sama noon la dëgg la internet bi may seetaan sax wala mhm. téléspectateur bi sama noonu la est-ce que loolu la ñu war a jël de benn phénomène rek. noon noon noon noon ñu ngi nuy bu baax a baax auditeurs yu Zik FM ndax waa Zik FM instant bi jëlaat nañ ñu direct. ñu ngi nuyu auditeurs yu Zik FM yëpp ci 89.7. ñu ngi nuyu bu baax a baax tamit euh, téléspectateurs yeeg internet yi Bril mooy suñu ganu tey émission bi li fi jot a jaar lépp neex na tubaab fa kàll Bril mi ngi wax ci musique mi ngi wax ci carrière am papam woote na yaayam woote na en direct seddeel ko loolu dafa neex lu lu lu neex. non, non, non, non, non, NON est-ce que non, doo dem ba non, sax mm. yàlla mi la NON sax est-ce que dem non, parce que non, <laughs> en fait gars yi non, yi non, rek non, non, def NON non, non, non, la en hmm. fait je me dis que la musique de dafa dafa large dafa mel ni te géej non, na non, bu boo xamante euh, euh, xaju fa ku ne xaj ci hmm. donc tey Euh, nekkul benn artiste day def day way benn son noon mu dox rek et que ñëpp noonu la ñu war a way. waaw tey am na ñoo xamante ne. Euh, musique dañuy xool ne kenn way na lii rek naa way loolu. Hmm. donc pour man loolu mooy indi loolu loolu mooy indi ñëpp génn ne noonu noonu noonu noonu noonu alors que am na loo xam ne boo koy xalaatee finalement da ngay parano. da ngay jàpp ne koo gis da ngay ne sa noonu la da noonu la alors euh, yàlla def na ni xool la sax wala lijjantiwu la wala talu la donc c'est vrai que am na ñoo xam ne tamit dañ lay xool bañ la te defoo leen dara. mais aussi tamit du njëpp. ba ku xoo ko xool rek wala kuy waaj ñëw si yow rek nga jàpp ne sa noon la. Mm-hmm. Euh, di wax waxu noonu tout le temps tout le temps au final nit ñi sax dañuy jàpp ne yow yaa parano. donc bon man moom euh, li may digal nit ñi mooy euh, même bu fekkee am nga ay noon xam nga defal li ngay def occupé wu si leneen nekk ci. C'est non dila gis ngay avancer dila gis ngay dem fu sori sori donc pour moi rek mais pas tout le temps nek di ci wax di ci wax di et puis et puis il faut nit ñi dañu xam dañu mhm. des fois yow da ngay da ngay da ngay di non ba yow vraiment c'est vrai. et puis non bi non bi gëna graw ci doomi moy feñak. qui mhm. non bi gëna graw mhm. bi gëna graw benen bi ci tege benen non bi bi nga Talo seyité bop mi yité yité njàmbur ngay nek voilà sénégal ngi gis ku am gom, gomu robalé amul gomu góomu moy mhm. mooy dul wer moy gom yu toyo rek <laughs> day ne sa pooj mhm. xam nga bo solo bo solo toy gom bi du feeñ deug la yow da ngay top piccu jambour piccu jambour fàtte sa gom biri dem am benn fi pitch bu ndaw mhm. wala Cheikh Anta bi am ben picc bu ndaw nga top ci jambour dëgg la naan mbiri picc miine bu ko fajut fekk yaa ngi góom fi am mën na laa indil musiba nga topp ca diwah. jàmbur di wax ba nit ko far picc ma cafe ko ba picc ba toj wér nga des sa góome gi gasu billaay wala cest à da ngay tal nit ki ba fàtte sa bopp loolu am ci Senegal. loolu am ci Sénégal mhm, nit day am day am paanu problème di lijjanti ki am kaas kaasu nga xam problème la am nga am paan di lijjanti kaasam <laughs> jël noonu da ngay jël noonu di def sa bopp ba def sa yaay sa dëgg la def na yee papa sa non non mhm. yaay sa noonu bopp meen. te da ngay gis koo xam ni yorul takkul wirul. nen maa yërëm samay noonu. ah yow yërëmal sa bopp ci sama yaram ah. <laughs> li nga wax ni sax son la su ma yeggee dinaa ko dinaa ko bind. waaw bind ko. Mhm. loolu. yaay sa noonu bopp. yaay sa noonu bopp. yow yaay sa noonu bopp mm-hmm. parce que nit ñi dañuy xëy di wuti lu ñu am pour dooleel seen bopp dooleel seen njaboot yow ngay xëy wut loo wax di wut ay noonu di wut ay noonu kon yaay sa noonu bopp bindal loolu gaaw balaa Ouzin Keita di ko jël parce que boo yéexee Ouzin Keita dina ko bind léegi nii <laughs> ayca ñu fàttali leen ñu ngi ànd ak tàngal bi nga xam ne moo di tàngal bégee tàngal ballagay tàngal jinjeer mi ci marché yi grande surface yi boutique yi fu ngeen dem da ngeen koy am nekk na tàngal boo xam ni bio la à base de jinjeer lañ ko defaree kan fi sen ñu ko defal doomi réew moom doomi ci liggéey di ci jariñu Euh, koppar gi des fii ci réew mi kon mi ngi nii tàngal baa ngi nii gën na ci xale yi gën na ci mag ñi rawatina ñun góor ñi nañ koy sàlloo na ne ci suñuy poche ne ci suñuy bureau ne ci suñuy oto ne suñuy kër su ko defee heure bu sa nekkee rek fàggu ci ñaar ba ñett yëy macc dana tàngal sa yaram nag waaye tàngal googu nag mooy indi deret ju tàgg ndax góor deretam war ta way kon lagga gaaw di ko jënd ci marché yi grande surface yi boutique yi fu ngeen dem da ngeen koy am mi ngi noonu tàngal baa ngi noonu ceetul biril noonu la ñu àndee tamit ak boisson bi nga xam ne mooy buuru boisson yi di boisson king nekk na boisson boo xam ne am na huit parfum am na cola am orange am na lemon am na cocktail am na fruit rouge am na li nga xam ne moo di ananas am na pomme am na morito mën ngeen ko jënd ci marché yi grande surface yi boutique yi fu ngeen dem da ngeen koy am bu seddee neex waaye bu gënee seeg di gën a neex euh, Euh, slogan bi mooy mos mosaat loolu moom mooy boisson bi euh, Biril dinañ ñëw dinañ ñëw tamit ci li nga xam ni moom mooy single bi nga mujj a génne. Mhm. single bi nga mujj a génne nu mu tudd. ëpp na ëpp na. waaw ëpp na mi ngi toj àdduna bi bu ngeen demee ci YouTube bi ngeen tàppee Biril ëpp na mhm. di ngeen ko mën a seetaan ci YouTube bi waaye balaa ñu dem ci YouTube bi damay bëgg yéen tamit ngeen xaar Biril wax ñu exactement ca ah ca. ëpp borom gestul.

tout à euh, amour voilà donc mu nek ben son bo xamantene euh dafa bok ci ben une dizaine de sons yuma ma war a génne. Mhm. Euh, am ay aussi ay vidéo comme que mhm. génne un ñaari album. Mhm. je me suis dit que na def ay single. vidéo donc suma def ay single vidéo le diko guenné diko jox samay fans diko jox aduna bi. aussi essayer de faire une musique qui va percer parce que je me dis tout le temps que la concurrence ne doit pas être entre nous. les artistes du Sénégal parce que fi Sénégal Brina est star stars artiste ñu xam mais man yalla dogal na may génn di voyager mais bo génnee dem si yeneen dëkk yi artistes maliens yi ak congolais yi sax lañu ñu gën a déglu sénégalais ni ñu développé. voilà nous sommes champions d'Afrique en football mais nous ne le sommes pas en musique. musique pay fii rek la ñu ci Sénégal. artiste lu mu siw siw siiw boo génnee Sénégal dootoo ko dégg donc je me suis dit que euh, bon on va essayer on va. voilà on va essayer de faire peut-être ça ne va pas être facile doo rek d'un coup rek mu nekk mais on va essayer de faire une musique qui va parler à tout le monde une musique de dimension africaine de dimension internationale. surtout donc ci loolu la nekk quoi ci côté image ak clip. mais mais loolu dinaa ci ñëw nan la ñu a def ba transporter musique sénégalaise. si si mu nekk. numéro un comme ni Nadio Musique nekkee numéro un. Mhm. Afrobeat yi comme ni mu numéro un. Mhm. lan la ñu a stratégie ban la ñu mën a teg. il faut qu'on fasse artistes yi di bokk ci. Mhm. Euh, di bokk ci festival yi gën a mag. ci label yi gën a trouver ay ay ay ay maison de disque yu mel ne Sony ay ay maison de disque yu mel ne ay euh, Island Records. dëgg la noonu ñu mën a dem ba suñu artiste yooyu signé ci label yu mag yooyu loolu danaa ci ñëw. incha allah mais euh, man du ma dugg ci ay détails. Mhm. man j'aime pas les détails. c'est vrai mais Bril. Mhm. at yi ñu weesu. Mhm. coow yi day bëri trop sa kaw. c'est vrai c'est vrai coow coow coow yi tegal di tegal di tegal. dëgg la dëgg la man leen rek laa lay laaj. sama yoon nekkul ci coow yi am sama yoon nekkul ci ki la wax ak ki la waxul. Mm-hmm. mais biir coow yu yëpp nu muy dajee sa kaw. Mm-hmm. da koy gérer. Mm-hmm. tout temps di rester meilleur. c'est vrai tout temps di génne ay it. Uh-huh. tout temps di liggéey tout temps di impressionner nit ñi tout temps. dëgg la mooy sa fort. waaw bon force bi may am nag mooy chaque jour je me dis que ni nit ku nekk ni nga toll rek la sa coow di toll. tay coow yu ab yu may am yu bëri Senegal, bëri senegal di ko dégg wala dara day day day day gëna day gëna montrer tay man fuma tollu ci Sénégalais yi. Mhm. amon na fo xam ne fa tollé ak lu munti am kenn du ci wax. deug la tay di nga toll fo xamantene ni li cion sek di wax siiw du borom mhm. euh luy am bu fekke 100 la 100 lañ ci wax 99 yep dara du ci deug 1 mo ci doon deug léegi li ci dess yep 99 yi nit ñi dañ koy inventer di sos di wax. loo xamante ne xam ñu si dara comme li nga doon wax sànq te lu ci bëri demeewul noonu mais nag da ngay comprendre que ni yow yaa siiw. boo siwee lu ne ngay dégg lu ne lu ne loolu des fois dañuy wax toog man dégg ñuy wax ci man loo xamante ne damay jàpp ne dafa am beneen bril bu waxul ak man bu nekk ci Sénégal. dëgg la loo xam ne loo xamante ne ça n'a rien à voir. donc après je me dis. <laughs> ñun des fois dañuy par curiosité ndeysaan après je me suis dit que non c' que peut être que fu ma toll la quoi donc naa ko sant yàlla bu baax a baax. Mm. et puis euh, gën a continuer gën a liggéey te xam ne kon am na ñoo xam ne ñu ngi may bàyyi xel ba lu am rek ñu créer ci ay yeneen wax. créer ci lu ci bokkul ak lu ne donc loolu daf ma gën a yokk force ba nga xamante ne tey lépp li nga xamante ne dama ko doon def dama ko yokk tey lépp li nga xam te ne dama ko doon liggéey dama koy xoolaat bu baax a baax lépp li nga xam ne dama koy wax dama koy xoolaat lépp li nga xam ne sax dama ciy dugg. Mm. dama koy xoolaat bu baax a baax comme que tamit siiw du jàmmi borom. waaw des fois nag nga dund espace yoo xam ne moo lay def ki nga doon. dëgg la Balla gay tey xam naa ne boo ko laajoon ki la gën a def mbër Issa Pouye lay wax. c'est bu ko Issa Pouye daane woon ca calaf ba. Mhm. Balla Gaye ci la del si ku mu taxaw jàkkaarloo da day fil. dëgg la de ci la jàppaawaat Issa ca dimanche boobu modd ko. Mhm. donc maanaam mbir day ñëw sa kaw mais mbir moom moo lay def mbër. c'est vrai donc loolu ñu ngi la ci encouragé bu baax. baax di la wax ni da nekk ci yoon woo xam ni. góorgóorlu bu la ci kenn bu la ci kenn jëlee. incha allah amal fulla mhm. amal fayda. xam yaay xam fi nga bokk. xam li nga bëgg. te li nga bëgg dafa am loola koy may na ca rek. inshallah allah tu ñu mën a def ba transporter musique musique sénégalaise mu nekk numéro 1 c'est vrai mu rek numéro 1 mu nekk numéro 2 sax. oui c'est possible c'est possible la doon jëm wax sànq c'est il faut que ñu xam ne nous on doit faire une musique qui parle à tout le monde pas une musique qui parle seulement aux Sénégalais tey buñ euh, c'est très beau ñuy def ay musique yoo xam ça parle aux Sénégalais nit ñi di ko TikTok di ko déglu partout mais aussi tamit euh, est-ce que musique boobu noonu ku nekk beneen dëkk mën na ko déglu man j'ai fait l'expérience pour xool euh, nit ñi yan musique la ñuy à l'extérieur ñu wax ñoo xam duñu ay sénégalais soit ay euh, ay éthiopiens lañ ay congolais ay euh, burundais ay ñu bëri quoi ñoo xam ne duñu ay sénégalais mais ñoom dañuy déglu Sidiki Diabaté pourtant. dañuy mm-hmm. déglu Fally Ipupa mais duñu déglu ben artiste au Sénégal. pourquoi parce que ñooñu dañuy wax une chose bu ñuy dégg. gars dañ ciy faral di wax naan la langue n'est pas une barrière c'est vrai parce que la musique est universelle mais aussi tamit nit ñi dañuy bëgg di dégg yow li ngay wax lan la. ah mais mais mais R. mi ngi nii di way. Bob Marley mi ngi way. Mm-hmm. Euh, Michael Jackson mi ngi way. Mm-hmm. Sénégalais bi da koy toog di ko déglu. dañ koy déglu c'est vrai te pourtant déggul xaala wala kase rek li ñuy wax. très bien mais c'est la musique c'est la musique. Uh-huh. c'est la musique qui est universelle. eux ils font une musique qui parle à tout le monde. Mm. donc tey jii man pour man loolu la ñu war a def mooy defar benn musique boo xamante ne. Euh, dëkk boo mënti nekk euh, mélodiquement. Mhm. musique bi dina la laal donc même bu fekkee xamoo texte yi ak paroles yi sax dina nekk benn musique boo xamante ne dina dina mel comme définition musique l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille maanaam dina neex ci déglu dina agréable. loolu bu ñu ko defee rek ëpp na loolu bu ñu defal ci na. li ëpp na li ëpp na léegi nag euh, ëpp na bi moom dama koy jël dédié ko madame Sarr euh, day tax ndax tey la suñu anniversaire mariage donc madame Sarr son biril bi nga xam ne da koo génnee xamaguma nag kan la ko dédicacé mais man may naa leen ko yéen ñaar waaw dédicacé naa ko madame Sarr defal naa leen ko pour yéen ñaar donc voilà monsieur Sarr ak madame Sarr madame Sarr na nga dem YouTube demal YouTube instant bi nii nii boo duggee YouTube nga bind bril ëpp na na nga seetaan clip bi maa ngi yow ñoo taxaw noonu waaw waaw donc euh, da ngay génnee

ba pare nak bu clip ba ñëwé nak mo gëna mëna jaay musique bi. des fois nga gis ko xam day wayu ben way. Mhm. clip ba ñëw ray ko. dëgg la du neex. Mhm. nga gis ko xam day way ben way du neex mais clip ba mooy ñëw yëkëti ko. donc bu ñett yëp dajé nak day neex bu musique bi dajé taxi bi riche clip bi ñëw euh, tegu ci kawam euh, da ngay am lo xamni lu extraordinaire ngay am. deug la deug la euh, taxi bi ya ko bind. wa ma bind sama taxi yëpp. Mhm. sama taxi yëpp ma koy bind sama musique yëpp aussi ma koy composer donc moi composé musique bi d'avoir texte bi te musique bi euh, pour ñi xam musique tout dinañ comprendre lu may wax c'est c'est une musique bo xamantene euh début bi blues la. Mm-hmm. Euh, ternaire la bu ñu demee tuuti mesure mu nekk binaire. Mhm. et que ça yi bu ma quatre mesures accord yi day changé nekkul benn musique boo xamante ne euh, dañu nekk ci quatre accords rek des c'est une musique boo xam ne ci biir musique bi dafa am ay variations accords yu bëri bëri bëri aussi mu am ay instruments yu bëri yu ciy joué. Mhm. Euh, ñu def ko ma def ko esprit comme man su may def musique euh, damay def day mel ne. Mhm. quand tu fermes les yeux que nga koy déglu day mel il y a un orchestre boo xam ne ñoom ñoo toog di ko thank you so much noonu laay liggéeyee musique maanaam maanaam maanaam son bi dang koy déglu mel ko ne ci concert. c'est vrai. Euh, Bril euh, ci page officielle bu Zik FM man ci la nek yow nga ne ci page officielle bu Saint TV euh, internet yi ngi commentaire qui dit Aminata Diallo n'est machallah Mariem allah Mariam le meilleur de tous les temps. c'est vrai que tu es le meilleur de tous les temps parce que son yi nga xam ne carton yu ci ëpp yaa ko def ci at merci beaucoup Qui dit Baye Serigne Lo Bril mën na lépp. tubarfakalla. Mm-hmm. Mm-hmm. Fallou Diop nee na Cheikh yaa ngi merci loolu gars yi xam nañ ko euh, à part donc euh, maa ngi gaañ. <laughs> j'en ai marre de vous. Euh, Babacar Cham nee na Bril bonne continuation. Aminata Diallo c'est le meilleur. Maymouna Ba. au oh, plateau bi ëpp Khadi Guèye ay keuram Monas Ndiaye jërëjëf ñi ngi contane ñi ne ci ci page officielle bu Zik FM. ñu ñëw ci page officielle bu saint TV. waaw ñoo ngi am Satou bëgg yaayam nee Bril des chansons me touche énormément surtout joyu xol des fois je pense euh, pénétrer dans les cœurs ou dans les pensées des autres tu me fais pleurer. xuj mhm. mu ne yow la gis euh, yaa nee na Bril on the beat am na ku ne maa ngi France euh, Tassia nee na brûle

Benzi Barbi Fatoussa Gueye donc bari nañ daal ñi nga xam ñooy commentaire ci page officielle bu Sen TV bu Sen TV ngi content ci di nekk foofu di content tamit bu baax baax ci internet di nekk ci page officielle bu Zik FM mhm. jamono ji ñu ngi ñuy ci Zik FM 89.7 di content bu baax tamit ci ñi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan ci Sen TV la chaîne leader ñu ngi leen di kontaane bu baax Biril Faj Fo moo nek sunu gan ñuy waxtaan ci euh, carrière musicale mais Biril jot na nga tekk soxna sama waa ji xam nga studio di fa toog ba 6 du matin waaw du yoon temps bu takal du yoon de du yoon de rek inshallah bu ah, sax xam nga ngay xaaj heure bi boo nekkee studio ba deux heures du matin nga bàyyi xam nga booy bi tey. ndekkal mm-hmm. kaña yi mu ndekkee nii <laughs> xam nga célibataire la. <laughs> waaw non loolu moom du yoon incha allah léegi rek bu neexee yàlla. teg kaas teg ñaari sachet xotti sotti yooyu yooyu baaxul yooyu mën naa gàttal sax fanu nit. ay wér di mën na la cee fekk. dëgg la dëgg léegi rek. ah yàggatul dara léegi rek sa awa takkal ñaareel bopp. waaw non ñaareel baa ngi ñëw. Ah? <laughs> mu ngi ñëw léegi ñaareel bopp. incha allah rabbi incha allah. dana ci baax de. yéen may profité di nuyu sama benn grand frère bu tudd Laay Ngom moo ngi jëm a dugg ba sonn sànq léegi mu ngi woote donc vu que tey tijjiwuñu ligne bi. Euh, maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee ñi nga xam ne ci ligne bi Fat Touré Modou Fall su waa kër Papa Petit Fall ñoom ñëpp actuellement ñu ngi may yónnee euh, ay message ñoo ngi bëgg dugg ñoo ngi wootee voilà mag leen di bëggee ñoom ñëpp bu baax a baax a baax waaw biril dafa am benn xam nga man man sa ñàkk kañaan moo tax mooy dugg ci wax bi sax di wax dëgg la mm. dafa am euh, ñaar ba ñetti artiste ñaar mm-hmm. yoo xam ne dañu leen découvrir mm-hmm. ci at bi ñu nekk mm-hmm. euh, xaw ma ndax xam nga leen xaw ndax mos nga liggéey ak ñoom bu fekkee mosoo liggéey ak ñoom bëgg aussi ñu jege la muy as the best ak ki nga xam ne moom di ombre diamond xam nga leen ombre ah ombre diamond waaw Obré Daman xamna ko as de bes aussi dama koy dégg. mais vraiment ñaar ñi nga xamante lañ euh, ñaar ñu am talent lañu parce que ñoo ngi def ay son muy cartonné ñoo ngi def ay musique muy neex aduna bi euh mag leen suivre bu baax baax surtout Obré Daman dafa am voix bu extraordinaire euh, que bon musna ko enregistrer bien, yoon xam naa peut-être moom dina ko faté sax mais euh, nit le ko am talent et que je sais que ni bon peut-être su ma liggéey ak ñoom man mun naa leen apporter dara ci seen musique. bon xam nu ma koy defee pour yeneen artistes c'est vrai. xam nga tax ma wax loolu. Mhm. parce que moi je pense que ni. Mhm. musique sénégalaise mën nañ ko jaay. Mhm. suñu defee open mind. maanaam xam nga dañ ne musique kenn du ko. kenn du ko bokk bokk. mais dañ koy bokk. dëgg la. parce que ouverture bu ma gis ñoom ñaar ñu am ko. ak ouverture bi nga am macha allah. ngeen di ay jeunes bu ngeen boolee tuuti li ngeen bokk. am naa ni mën jaay destination. musique sénégalaise c'est vrai. le son bi. I like this. yeah son nice I like this son mom ni ni rek la war mën mel. Li mom même man euh, même su ma ko defaroon sax xam direction bi lay jël quoi. Yeah. que daa am musique bu nek nu mu war mel. <laughs> te ce sont des artistes extraordinaires man Obrey Daman bokk na ci artistes yi nga xamante ne ñoom la gën naw ci Sénégal. Yep. donc Obrey Daman c'est c'est un artiste de dimension internationale vraiment. booloo leen. Nous ngeen bu ñu transporter li nga wax rek yow sénégalais bi au Sénégal. Mhm. sa morom artiste bu nekk Sénégal concurrencer doole ngeen concurrencer. nekk ci benen level. ak kum ti doon ci Sénégal. man ngeen indi ay Grammy Award. ngeen mhm. disque d'or dem ci label yu mag yi ay signé ay Sony. signé ak ay whatever. dëgg la Sénégal daal. en tout cas daal maa ngi lay profité leen wax ne man dama open tëj tëjaluma kenn porte studio bi moomu ma ko. Mhm. donc clash yi musique ñoom artistes yi ñoo ko moom. bu fekkoon man kese maa moom kon sama bopp kese laay liggéeyal. Mhm. mais aujourd'hui dama ko teg pour sénégalais yëpp képp ko xam ne sénégalais nga studio bi sa studio la boo bëggee liggéey wala nga sentir bi du defal la dara. Mhm. ba ma wooyee nañ ci waxtaan déggoo ma defaral la lu amul fenn incha allahu rabbi. ay mot de la fin. waaw maa ngi euh, profito di la remercier grand Cheikh Sar vraiment yaa ngi ciy jàpp parce que ñun damay faral di wax ne ay marchandises lañ rek yi ñu lonk ci boutique tant que nit ki ñëwul defal ñu promotion wax ci ñun donc ñi war a jënd duñ jënd ñi ko xam ne ñoo war a jël marchandise boobu duñ ko jël te yaa ngi koy def bu baax a baax a baax mënoon nga ne. Euh, n'a sëgg bril wala n'a sëgg kenn mais tu l'as pas fait aujourd'hui euh, man sax woowuma ma donc euh, mo wax la sama single bi nga ne ma amul ben problème mardi yow lay jël donc quelque chose qu'on a même pas programmé ma la ciy remercier bu baax baax vraiment grand bu ëmbal nga et que tey jii nii ñëpp xam nañ né tu es le meilleur ma la koy euh, confirmer watal donc vraiment content na et tamit profito di nuit sama wa kër ñi nga xam ne ñëpp ñu may ay message Euh, samay raq Leena ak Oumy Ngom ak euh, samay frère Cheikh Tidiane Ngom Abdoulaye Ngom ak samay sama waa kër papa ñoom Betty Maguette Yacine. Euh, Fallou ñëpp ak sama papa bi woote woon sànq Pape Moussa Fall ak sama yaay. ak sama papa Babacar Ngom donc nous leen nuyu bu baax baax sama yaay ñu ngi ay message ak sama fans number one bril gis sama portable tay fess na ak ay message émission mo mm-hmm. voilà ñu ma fay ay message ci Sénégal ak ño sax nek ñu Sénégal France ngi sa message avons jërëjëf na ci gaay bu baax baax donc vraiment ñun rek gars tamit euh, ëpp na ngi YouTube bi vidéo bu la mm-hmm. donc euh, tamit ne ren li première bi mooy premier waaye nekul dernier bi donc amna yu bari bari yu waaj ñew inshallah incha rabbi dina am ay vidéo yu bari yu genn et puis tamit na gaay xaar Bril Inshallah, ak artistes mi muy yépp ci classic music ci ay euh, spectacle live partout au Sénégal et dans le monde Inshallah. Aïcha émission bi ëpp na Bril li mu génnee ëpp na single baa nonu noonu ëpp na mi ci YouTube bi demal abonné ci page Bril for fight bu la neexee wala bok Bril nga daal di euh, seetaan tamit li nga moments ne vidéo bi merci beaucoup suñu internautes yi merci beaucoup tamit téléspectateurs et auditeurs aussi Zik fait merci beaucoup déjà de sponsor yi ñu àndaloon lu ci mel le couche ak lingette bi gën di Kalinex waaye tamit quand euh, fi seen bi nga xam ne moo moo ñu indil euh, lii di de bii di Boisson King merci beaucoup wa Free Money 1xBet bet nañ merci beaucoup à tout le monde cher